Ousmane Sonko ce que téléphone portable kese lañ koy jàppee non Ousmane Sonko kenn jàppee ko téléphone portable kese euh, euh, bien vrai yoon li mu def sàcc la ko tuddee parce que amutul beneen expression quand tu arraches violemment et volontairement un bien appartenant à autrui et que rendre la ko yoon soo xoolee article 364 du code pénal sàcc la ko tuddee donc quand on parle de vol les gens s'offusquent pourquoi il a été arrêté pour vol mais juste dañu leen bëgg wax ne sàcc càcc googu dafa dafa dafa dafa gaawoon dafay gaawoon rek li nga xam ne ni moom lañ naroon def li nga xam ne ni tamit dañ ko waroon def ba pare daf ko mooy ñu jàpp ko pour appel à l'insurrection loolu mooy li nga xam ne ni buggoon nañ leen ko wax mais également également également ñu rappeler leen euh, xëy na dama ko omettre un tout petit peu en français mais ñu rappeler leen que ne li ñu jàppee Ousmane Sonko li ñu ko jàppee nii jotewul dara dara absolument rien à voir avec la première procédure où il a été condamné par contumace loolu dama bëgg mu leer également ci bopp nit ñi nit ci ñu ngi ci débattre di ci wax il a été arrêté pour autre cause Ousmane Sonko li ñu ko jàppee leneen la nekkul dañ ko jàpp parce que contumace la non le parquet du moins l'autorité l'État avait la possibilité de le faire mënoon nañ ko def bu yàgg parce que la décision est devenue définitive toutes les formalités de publication daf nañ ko le parquet n'a pas opté procéder à son arrestation parce qu'on lui tendait une tâche pour se constituer prisonnier c'est pourquoi on ne l'a pas arrêté pour les faits pour lesquels il a été jugé devant la chambre criminelle et condamné à deux ans d'emprisonnement ferme avec contumace fii li ñu koy jàppee mooy appel à l'instruction mooy sàcc ak téléphone sàcc mooy loolu lañ koy jàppee donc contumace bi ba léegi dara changé ci dara yëngatuwu ci contrairement à nit ñi di wax loolu lañ bëggoon a euh, leeral ko ci kanamu sénégalais yi euh, di leen wax ne di leen wax ne euh, di leen wax ne Ousmane Sonko comme niñ ko waxee sànq rek mooy li ñu koy li ñu koy toppee appel à l'insurrection affaire u terrorisme affaire affaire ay ndel yi nga xam ne ne ay manifestation am nañ ko ah association de malfaiteurs loolu yëpp wax nañ ko ci français je pense que euh, tekki ko ci wolof dafay xaw compliqué donc par conséquent c'est tout ce qu'on voulait mettre à votre disposition et le parquet reste à votre entière disposition pour des informations complémentaires également si nécessaire si nécessaire après l'inculpation de Ousmane Sonko peut-être dinañ ñëw jàkkaarloo ak yéen wala ñu dafa leen communiquer comme ça ngeen xam exactement yenn infraction lañ koy toppee parce que dinañ ko defaree léegi ci kanam incha allah merci beaucoup